قالك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورميت مرماني بسوء وكفيتني شر من عاداني ورميت مرماني بسوء وكفيتني شر من عاداني ورميت مرماني بسوء وكفيتني شر من عاداني بحرمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim mbokki jullit yi mbokki téléspectateur téléspectatrice téléspectateur yu LCS la chaîne sénégalaise la télé passionnément jël siwaat nañu ko yéen ci seen émission bu mag bile muy ëttu daara ji tabarakallahu xam naa changement horaire bi ñu jégglu leen ci incha allah léegi ci weeru koor bi 15 heures 30 lay commencé ci kattanu yàlla ak mbaaxam incha allahu taala ñu ngi ci liggéey bi pour gën leen ko yéwénalal incha allahu taala ngeen xam ne léegi koor wi yëpp altine ba aljuma ci kattanu yàlla ak mbaaxam émission bi tous les jours lay doon mais 15h30 léegi lay commencé ci kattanu yàlla ak mbaaxam ñun nuyu leen jiital ci bi sunu kilifa yi ci diina ji suñu kër maam Cheikh Nasi Asadu Abi radiyallahu taala anhu suñu kër maam Cheikh Omar Foutiyu tal radiyallahu taala anhu suñu kër maam al haj malik si radiyallahu taala anhu suñu kër maam Limamullahi yof radiyallahu taala anhu suñu kër maam Bukunta Ndiassane radiyallahu taala anhu suñu kër maam Ahmed djegen ties radiyallahu taala anhu suñu kër maam Ahmed si se pir suñu kër maam Amari Ngoor Ndak Seck Thiénaba suñu kër maam Abbas Sall luga suñu kër maam Abdallahi Niass Kaolack tabarakallah ak mbooleem fu këru kilifa yi ci diina ji nekk ñun joyal suñu nuyoo ak sunu ziyaara jël ko teg ko ci loxol xulafaa yi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu doole leen a dëgëral doole leen a kartanal ba la ñu naala liggéeyal seen maam ya ci euh, la ñu bayoon mu rafet lool yàlla defal leen ci lu kawe seen njort bi xormati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam euh, beral nuyoo ak cant ak ngërëm ak ndokkeel ak ziyaar téléspectatrices yi ak téléspectateurs yu LCS yëpp fa tabaarakallaahu ndokkeel leen ci weeru koor wu tedd wu sell wi nga xamante ne nii dugg nañu ko di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lépp lu ñu ci jaamu yàlla yal nañ ko yàlla nangul bu ko nangoo fulal nu ko euh, bi xurmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu ndokkeel leen ci bu baax a baax a baax a baax a baax Euh, muy weeru yiw di weeru yërmande di weeru njéggal di weeru njot sa bopp ci safara tabaarakallahu mu ëmb weer wi sante ko yàlla subhaanahu wa taala nag ëmb ndax diggante daaw ak ren ay milliards doomu aadama faatu nañu fi fa tabaarakallahu te du seen bëgg a dem moo leen yóbbu waaye app bi leen seen boroom appaloon moo jot ala kulli xaalin mu yebal malakul mawti mu jël leen yóbbu ñun ñi fi desande yi tamit fulla ak fayda bàyyiwuñu fi waaye app ba mu appaloon ñële seen app jot ñu dem app boobu moom moo ñu fi bàyyi fa tabaarakallaahu bu yegsee tamit dañuy dem wuy jëf macha allah su ko defee nag loolu la ab jullit di war a bàyyi xel fu mu toll tabaarakallaahu tax mu gën a góorgóorlu ci liggéey euh, liggéey bu rafet ci àdduna ngir bu ëllëgee yowmal qiyaam bu dajeeg boromam durus fa tabaarakallaahu su ko defee euh, fa tabaarakallaahu Euh, ndokkeel leen bu baax a baax a baax a baax euh, ñi ko um démb ak ñi um tey yépp euh, yal na yàlla nangul ñépp rek loolu mooy li ci am solo loolu mooy li ci am solo xam naa juyoo bi moom fa tabarakallahu aaya bi ñu war a jàng suratu zumar aaya 46 incha allahu taala dina ci wax nga xam ne juyoo bi nekkul lu gën nekkul lu gën ci ay jullit tabarakallahu waaw parce que jullit yi bu ñu sañoon seen lépp dafay nekk benn ñuy tëralandoo di yëkkateendoo fa tabaarakallaahu waaw su ko defee nag euh, liggéey bu rëy la laaj liggéey bu mag la laaj waaw parce que ëmm gis nga li gën a yéeme mooy xaraam na xaraam na lekk bëccëgu weeru koor dafa xaraam xaraam na woor bésu korité te chaque année loolu am ñu mu arrivé ci Sénégal waaw chaque année nga gis ku lekk bëccëgu weeru koor mu xaraam mu lekk chaque année nga gis ku woor bésu korité te xaram na ci moom mu woor li ko indi mooy jiw yii rekk xew waaw ala kulli xaalin nag yàlla dina atte lépp waaw ñun moom nañuy def rekk waaye ëllëg yowmal qiyaam yàlla dina atte lépp waaw ñi tege woon ci dëgg tabaarakallaahu dana leer ñu ci tegewul woon i tamit dana leer waaye lii moom lu ñu war a bàyyi xel la waaw lu ñu war a teel a saafara la fa tabarakallahu ci réew mi waaw baada audu billahi min alcheytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim qul illahumma fatira alsamawati wal ardi عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون سنو بروم سبحانه وتعالى غناو بمو تودي مشركيني تمويني بوكا يالله سبحانه وتعالى غا خامني بونو تودي يالله كسه seen xol ya gàntal parce que mënuñu supporter nga tuddal leen yàlla kese te raxoo ci seen xërëm yi waaye boo leen tuddalee leneen lu bokkul ak yàlla lu aju ci seen xërëm ya yàlla nee na ñu kontaan waaw bi mu noppee ci loolu ak ŋàññi leen seen bëggug bokkaale yàlla ak seen daw gi ñuy daw wéetal yàlla yàlla ni qul illahumma waxal ne sama boroom yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul illahumma waxal ne sama boroom fatira samawati wal ard moo sos asamaan yi ak suuf waaw aalim al ghaybi wa shahadati moo xam li fàddu moom yàlla moo xam li teew waaw moo sos asamaan yi moom sunu boroom moo sos suuf si moom sunu boroom waaw fii sitati ayyaamin ci juróom benn fan ci li mu ñu jàngal altine ba aljumma mu noppaliku samedi waaw ci la bind asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaari ci tanam subhanahu wa taala dégg de asaman bind asaman soog bind suuf motax fatir fatira samawati wal ard nga xamni ni sunu boroom du kenn ëmma parce que bu njëkkoon bind suuf door di bind asaman kon say say ne bi muy bind asaman ci suuf la taxaw mu njëkk bind asamaan yi kon da laaj fan lay taxaw fan la taxawoon bi muy bind samaan te boobu bindagul suuf mu delluwaat lépp ci kattanam subhanahu wa taala waaw innama amruhu ida arada an yaqula lahu kun fa yakun lépp day dugg ci biir na meelam ak li mu nam amal nekkal loola nekk na mu koy defee kayfiye bi boroom xam-xam ni dañuy tere nga xuus ca parce que mën nga lab yàlla ni muy suppaxndikoo ci boppam même sayduna muhammad nee na tafakkaru fi xalqillahi wala tafakkaru fi llaahi fa tuhliku bu ngeen dee xalaat ak di def ay recherche na ngeen ko def ci yàlla bind ci mbindeefu yàlla yi waaye bu leen ko jëf bu leen ko def ci jëmmi yàlla subhanahu wa taala ndax bu ngeen ko defee rek mën ngeen naal ko waaw parce que da ngeen di dem ba lab xam nga Pape Sarr kii yéeg ci garab dem ba yegg ca njobboxtal ga kooku mënatul continuer yéeg waaw day xala wàcc rek moo tax am na fooy yegg ci yàlla da ngay réer mër waaw parce que la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiful xabiir waaw mënoo koo làmb daj ko dégg nga moom moom subhanahu wa moom mooy dabu mooy xam li nekk ci biir xolu jaam kenn ku ci nekk la nga nekk mu xam ko waaye na muy jëfandikoo di ko suppaxndikoo ci nguuram loola boo cay xalaat dina dem ba mo tul mu indi lay dépression nga jaar fa rek dem sa yoon waaw moo tax aalimal xëy yàlla mo xam li fad moko xam wa alim al ghaib wa shahadati ligtéeyu itam moo ko xam ndax mo ne fep wa motax tax فاختر ولا تختر فكيف اختيارنا فإن مغابات الأمور تغيب تان لول يال لمام سيد الحاج مالك وخ تزجر القلوب تان لول يال متانن لغن مدفال واي بول تانل سبب باسكو لي غن كومبل يو خاملو يالا مكو خام كون نيانال يالا يالا لي غن تي مان nga xam ko ndaxte ndëxañteefu mbiri day fàgdu rek waaw fala yudhiru ala ghaybi ahada illa man tada min rasulin boo xëy na ki mun na ma xamal mu xamal ko mais ku mu xamalul mënuloo xam lu ñëwagul mënuloo xam lu ñëwagul mën nga caa tas diggante mën nga caa yàq mbokk mën nga caa wax lu amul moo tax Seyduna Muhammad tere ko li aju ci wàllu gisaane Moustapha tere ko waaw moo tax mu ne la boo demee ci kuy gisaane nga laaj ko mu wax la nga ni lii amul quarante jours loo ñaan yàlla du yéeg loo jul yàlla du ko nangu la rasulullaay wax soo dëggalee li mu wax weddi nga lislaam waaw moo tax istixaara nabawiya rek la téere yi daganal apprécier ko pour jullit buy dugg ci mbir bëgg a xam ndax lu gën la ci moom wala gënul ci moom mu def istixaaratu nabawiya mooy li saxaara bi sayduna muhammad joxe julli ñaari rakkaa sëlmal jàng ñaan nga waaw su ko defee boo ca noppee xuusal ca mbir ma nga bëgg a def su gëné yàlla dina la jàppandalal yoon yi yëpp bu gënul dana galankor lépp ba do ca dugg waaw loolu nag kenn ku ci nekk yaa koy defal sa bopp waaw waaye bu fekkente ne rek ci shariyan ak nas boo mën a sukkandiku muy texte amul fenn fu ñu daganale benn listixaar ci sunna ci sharia lu dul bii sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxe parce que mbiru xëy bu lu ñëwagul lañuy bañ nga xuus ci parce que loolu mbiru sunu boroom la waaw aalimal ghaybi wa shahaada yàlla moo xam li fàddu li bët mënul tege wa shahaada ak li teew bët mën ci tege parce que li teew sax ëmma xamuloo ci dara te yaa ngi jàkkaarloo moom parce que yàlla xam na ci li teew loo xamul waaw bés bii nga nekk tey muy aljuma jant bi soowagul yaa ngi ci aljuma ji di mais li aljuma ju ëmb yépp kumpa la ci yow xamuloo ko waaw te aljuma ji teew na yaa ngi ci biiram jeexagul kon aalimal ghaybi wa shahaada ki xam li fàddu xam li teew mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dégg nga de waaw anta taxkumu yow yàlla yaay atte bayna ibadika sa diggante jaam yi yowmal qiyam fii ma kaanu fii yaxtalifuun ca la ñu nekkoon doon ca juyoo waaw fii dunyaahum sa tafsilu baynahum yowma maadihim wa nushurihim wa qiyaamihim min qubuurihim dégg nga li ñu nekkoon doon ci juyoo ci seen àdduna ëllëg yàlla dinga leeral lépp yowmal qiyaam bu ñu dekkee ba génn ci seen bàmmeel ya taxaw ci sa kanam su boobaa yàlla dinga nga lépp dinga leeral lépp waaw kon loolu la wax sànq ni la doo dut baaraam ñi um démb ak ñi um tey parce juyoo am na waaw ëllëg yowmal qiyaam yàlla moom dina leeral lépp dina leer waaw saa yu kum koor jotee ñu juyoo ci korite jot ñu juyoo ci lu ci mënti am ëllëg yowmal qiyaam dana leer ci kanamu sunu borom subhaanahu wa taala waaw diine nag ëmma سيرين بابا كير سير رضي الله تعالى عنه دانو غاني سي ديني بولكو مصلحه سي ديني تام بو مو خام سك تايل اه دين كين دوكو مصلحه بو تي خول لو نيه نيت مي خول تي لي نيه يالا باسكو الدين لي وحدي يالا نينا ديني سما علال من كسا ماكو موم بوكو مكو اك كين واه ki ngay yaakaar ak di ko déglu ak di ko valoriser yéen ñaar yépp yéen a bokk benn buur yéen a bokk benn borom bi sant ngeen war koo jaam ni mu la ware en tant que yow mi nekk taalibi noonu la waree sëriñ bi noon la waree waliyu bi noon la waree yonent bi noon la waree malaaka yi kenn ku ci nekk danga ngaa war a servir sa borom ci li mu la sant kon nag diine kenn ku ci nekk sa fardu ayni da nga koo war a sa bopp waaw da nga koo war a sa bopp di ko saytu foo toll di ko topp parce que bu dee woor kenn wóoralul kenn waaw boo yaakaaree ne nag kenn tax ngay woor ëllëg yàlla dina la bàyyee kooku yow mal xiyaam ndax am na lu mu lay fay am na payoor kullu ab kullu amal ibni aadama la illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi yàlla nee na koor moom sama alal la maa ko moom waaw doomu aadama yi ñuy jëf yépp mën nañ ko yàq ci ngistal ba mu des koor koor ki koy def yàlla moo tax mu di ko def bu ko def ngir kenn yàlla ni bu ëllëgee maa la koy fayal suma bopp waaw loo xam ni ëllëg yàlla moo la koy fayal boppam ngalla waay téyel ko sa bopp ci sa loxol bopp jëf-jëfi jullit wax naa leen fii ba tàyyi ne leen asamaan si moom borom xam-xam yi scientifique yeeg tout ak borom xam-xam yi li ci ëpp ci fuqaha uy d'accord nañu ci ne ixtilaaful mataali moom laa yusar asamaan si du ñaar weer wi du ñaari weer waaw fu mu feeñ ci àdduna bi feeñ na fépp feeñ na fépp su ko defee nag Sénégal moom ni mu ci nekkee en sax du du du jàmm waaw du jàmm waaye nag yàlla moo xam nañu bañ a nañu bañ a nañu bañ xuus ci eh, yenn yi te bàyyi ak yàlla rek waaw te bàyyi ak yàlla waaye daal jullit bi ëmmal lépp lu muy def na xam ne daf koy def ngir boroomam subhaanahu wa taala jaamu yàlla la waaw te jaamu yàlla gi yàlla amu ca dara ëllëg yowmal qiyaam njariñ li yépp ci yow lay dellu yow mi ko doon def sa njariñ kese la su ko defee nag yooyu yàlla nee na yi ngeen doon nekk doon ci juyoo déggoowu leen ci woon ci àdduna bu ngeen dekkee yowmal qiyaam bu ngeen ñëwee ma àtte lépp bu ngeen ñëwee ma àtte lépp waaw moo tax sayyidatuna Aïcha euh, Abdourahman laaj na ko ne ko ci lan la sayyiduna mu sallallahu alayhi wa sallam daan ubbee julleem bu musaan jóg guddi waaw sayyidatuna Aïcha ni ko yonent bi daan nekk bu daan jóg guddi ci naafilaam day ubbee julleem allahuma rabba jibril wa mikail wa israfil fatira alsamawati wal ard alima alghaybi walshahada anta taxkumu bayna cibadika fima kanu fihi yaxtalifuun ahdini lima xtulifa fihi min alxaqi bi idnika innaka tahdi man tashaawu ila siratin mustaqim waaw loolu la daan ubbee julleem moom yonte yàlla muhammad naafilaam guddi yow yàlla yow mi nga xam ne yaay boroom jibril yaay boroom mikail yaay boroom asrafil yaa sos asamaan yi ak suuf si yaa xam li fàddu yaa xam li teew yaay atte say jaam ca lañu nekkoon doon ci juyoo dégg nga yàlla yan lañ ma jubal ci li nga xamante ne ni wuute nañu ci la nga xam ne moo cay dëgg nga teg ma ca waaw maanaam saay wu juyoo amee rek yàlla fa dëgg ga féete yàlla nga ma gindi ma tege fa ñaan bu am importance la ëmma waaw comme ñun moom dañuy jiyoo rek waaw <laughs> loolu jar na di ñaan di jullit bu nekk war nga di ko ñaan yàlla maa ngi lay ñaan daal bu jiyoo amee yàlla nga ma giide gindi ma ba fa dëgg ga nekk mat féete foofu tege foofu waaw ci sa ndigal ndax innaka di من تشاو الى صراط مستقيم يوي ياي غيندي كولا نيه ياي جوبال كولا نيه تيكو تي يونو جوبي والله ندسان كون نك لولو لو جرا باي خل لا فتبارك الله موتاخ سونو بوروب سبحانه وتعالى دلو دي واخني غيسغا ولو ان للذين ظلموا تموي مشركوني bu fekkoon ne tooñkat yi dañoo moomoon maa fil ard jamian li nekk ci suuf yëpp matériel yi yëpp ñu moomale leen ko ñu moom ko yilif ko wa misliwu ak lu tolloog àdduna ak li ci biir maaw ànd ak àdduna ëmma mushrikuun yi la yàllay waxal te mooy tooñkat yi ñiy bokkaale yàlla ak ñi nga xam ne sax ëllëg yowmal qiyaam naruñu texe wala iyaadu billah safara lañ naru jëm yàlla nee na bu fekkoon ne dañoo moomoon àdduna ak li ci biir amaat leneen lu tolloog àdduna ak li ci biiram yépp dégg nga laftadaw bihi waaw danañ ko jotoo min suuil adabi ci tiisu mbugal mu ëllëg yowmal qiyaam seetal loolu parce que mbugal ma na mu tiisee boo amoon loo joxe jotoo ko pour mucc ca di nga ko def di ko joxe di ko joxe imaginel tey borom alal bi ëmb milliardaire bi borom kontu bancaire yi yàlla xañ ko wér-gu-yaram ma nga ca lalu hôpitaux ña ngi ko branché ay raakool su bëggee tuur ndox ci ay raakool la koy defee su bëggee dem cabinet ci ay raakool lay jaare suñ ko bëggee jox lu mu lekk mu jëm ci biiram ci ay prévision ay raakool lay jaar te mi ngi ay milliards waaw tey bu ko mënoon a bu mënoon a ñuqi comptam yépp joxe ko tey amaat wérug yaram ak kàttan gi mu amoon démb dana ko def waaw parce que wér ëmb kenn amul njëgam moo tax loolu rek doy naa sant yàlla léeg-léeg euh, nga dajeeg nit laaj ko sa waay naka dëkk bi mu ne la dara doxul dara doxul ah kay dara dox na parce que li feeg yaa ngi sa wérgu yaram mi ngi dox li feeg yaa ngi sabablu mi ngi dox li feeg yaa ngi amus tuut lu mu néew néew mi ngi dox waaw ah. ndax yàlla mooy dogal yaatal wërsëg ci ñi xatal ko ci ñi yabsutu rizqa li ma yashaau wa yaqdir dana ñëw yàlla nee na man lay soob ma yaatalal ku ma neex wërsëgam man lay soob itam ma xatalal ku ma neex wërsëgam ñii yaatule ñii xatle yàlla nee na loolu man la neex mënoo ci dara waaw kon doylu rek moo am solo li ngay am mu néew mu bari nga doylu rek bu yàlla tuddee mu war a yaatu dana yaatu bu ko tuddul mënoo fexe ba mu yaatu waaw su ko defee loola ñu comprendre ko ñu comprendre ko parce que lépp yàlla subhanahu wa taala nee na sans euh, dépend ci man ci man la aju yépp waaw waaye ñoom yowmal qiyaam bu ñu amoon àdduna ak li ci biir ak lu tolloog moom yàlla nee na dinañ ko joxe ngir jotoo ko ci tiisu mbugal mu yowmal qiyaam moomu laftadaw bihi min suuil adabi mbugal mi nga xam ni yàlla waral na ko ci ñoom ëllëg yowmal qiyaam ànd ak loolu yëpp yàlla du nangu njot gi la yaqbalu minhumul fidaa walaw kaana mil al ardi dahaban donte sax li fees àdduna yëpp daa fees dell ak jamaak or yàlla nee na loola buñ ko joxe woon pour jotoo ko bañ a dem safara du ma ko nangu waaw parce que doywu ko daal soxlawu ko di waaye loolu daf lay wax ne rek ne mënul nekk parce que ëllëg ñoom mënuñu faa am luñ jotoo ci safara waaw mënuñu am luñ jotoo parce que loolu amul foofu ëllëg wax la maanaam euh, yëjji la rek mënul nekk loolu comme aaya bële ni mu ko waxee woon wa badaa lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun wa badaa feeñ lahum ñeel leen min allahi tukkee ca yàlla ma lam yakunu yaxtasibuun lu ñu njortul woon waaw ëllëg dinañu gis lu ñu foogul woon ne mbiri nii lay demee amma seetal loolu ki nga yaakaare woon mbaax yaakaar ne ku ragal yàlla la yaakaar na nitu yàlla pur la ëllëg mën ngeen tasa yowmal qiyaam nga gis ci moom loo njortul woon waaw wal iyaadu billah ñu di ko jéng jëm jëmale ko safara yaa ngi doon xeet nit ci kaw suuf ak di ko yéesal ak di ko ayibal fekk ëllëg yowmal qiyaam ca kanamu yàlla subhaanallah waaw mën na bokk sax ca ñay ram mu ëllëg yowmal qiyaam fekk na yàlla ëllëg rek moo xam ay mbiram na muy na muy na foofa waaye wa badaa lahum min allahi maa lam yakunu yaxtasibuun dafa yaatu waaw ëllëg di nga dajeeg yowmal qiyaam loo xam ni doo njootu woon ne noonu lay demee foofu ëllëg وظهر لهم من الله العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم وبدا لهم سيئات ما كسبوا فين لا خامني فاغ وون نانكو سي اي نياوتيف ييب تيو سي سين كانام ليب تيو واو ليغا نيك وون سي يو حرام اك اي بكار ييب سي كاو سوف ايلك يوم القيام غا جاكار ييب واو غا جاكار ييب wa xaaqa bihim maa kaanu bihi yastahzi'uun teer ci seen bopp lañu ñu doon yéjj mbaax gi ñu doon saboote ak di ko yéjj ndaw si nga gisoon muy sellal boppam di muur ay yë ay cëram nga di ko saboote naan ko dangeen di gaf ténj ki nga séenoon muy sol lu yiw di yor kurusam di jaamu boromam nga di ko saboote waaw da ngaa teel ndaw dégg nga de waaw wa xaaqa bihim kaanu bi yastahzi'uun waaw ak la nga ñàkkoon a gëm di la ko wax di la ko waare mu def la ay reetaan waaw yowmal qiyaam nga ni daal yowmal qiyaam moom est-ce que am na man maa ngi benn sax benn benn benn waay xam naa ko parce que suivre naa ko ci ay ay dramatique yu muy joué mu ngi incarné jabaru jàmbur ngeen baal ma li ngeen di tuddee pour gérer ko te moom borom jëkkër la mun ne ko man dama am jëkkër mu ne ko loolu du dara mën nañ koo def yëfi mag waaw mun na ko waaw yowmal qiyaam bu ñu teewee ci kanam suñu boroom منكو اسك يوم القيام امنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اه اسك يوم القيام امنا سيت اللول دونت تياتر لا مي بور ولا ني ان نيو خامني نيوم لول لا نيو گم بور نيوم كو دي جيخنا تا اي جوليت لا نيو ويو تخلو لن نيه ديف lu leen seen bakkan taaralal rek sawar nañu pour def loolu c'est ça parce que léegi ñoom jàpp nañ ne ku dee jeex na waaw boo noosul woon fii yàqu nga boo profité woon fii dox sa ndaw yàqu nga parce que yowmal qiyaam amul walla bon euh, safara si ñuy dégg yooyu yëpp taxawul kenn du fa dem voilà te fekk alquran moom waxul loolu يالا جن يوم القيام سفر دينا فيس لام لا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين لا كون لولو لو متى باي خل فتبارك الله لو متى باي خل موتخ آه، سبحانه وتعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولا ندسان lañu nekkoon doon ko saboté tey teer na ci seen bopp de waaw teer na ci seen bopp moo tax bul nangu ku la découragé ci wàllu jaamu yàlla ngay jigéen di góor li nga nekkee te yaakaar ni mbaax la sax ca waaw amul kenn ku mus a jóg uti mbaax te seytaane ngembuwul ngemb ay nit ci ñu taxaw pour gàllankoor la ak ay sabotage ak ay wax yu ñaaw waaye déedéet bul faale la waaja waxoon bul toppatoo yooyu yëpp bul ko sóoraale yow ki la amal importance muy sa boroom nekkal ca la la war ëllëg yawmal qiyaam ba ngeen daje waaw yàlla nag di jàngat doomu aadama natiiram ni nit mel ëmb ni mu mel papsaar ni mu mel Oustaz Mor ni mu mel Pape Cissé ni mu mel keneen ak keneen ni mu mel waaw waaye nag fa tabaarakallahu dafay am souvent ci ay nitam dafay am ci ay nitam ñoo xam ni yàlla subhanahu wa taala nee na bu fekkente ne nii am na lu leen dal am na lu leen dal ci wàllu tiis dégg nga de am na lu leen dal ci wàllu tiis wa iza massal insaanu durrun waaw bu fekkente ne ni yàlla dogal na tiis dal ci kawam moom doomu aadama boobule waaw dafay ñaan yàlla pour yàlla teggil ko tiis wi dégg nga de moo tax mu ne la yàllaa ngi wax ne di xibaar nit ci ne bu nekkee ci situation bu difficile ma ngay torox lu jëm ci borom subhanahu wa taala ak di dellu ci moom ak di ko ñaan waaye bu ko joxee wërsëg nag mu daal di bew daal di naagu waaw wa qaala innama uutiituhu ala ilmin waaw joxeef nañu ma xéewal gi ci yàlla xam gi mu xam ne dama koo yeyoo ala ilmin ay lima yaalamu llah taala min istixqaaqi lahu waaw ngir li yàlla xam ci sama yeyoo xéewal gi moo tax ñu jox ma ko waaw bu fekkoonte ne woon na jagoowuma ko woon eh, kon kenn du ma ko jox yàlla ni déedéet bul yaakaar ni loolu eh, war nga ci bew bal hiya fitnatul yàlla nee na fitna la dama la ci natt ba xam testa la ci est-ce que bu ma la joxee xéewal gi di ci topp yàlla wala di nga ci mooy yàlla seetal loolu xewal gi ma la jox du looy tiitaroo du looy mbewe du looy ndamoo yàlla nee na fitna la pour yow alal ji lu mu bari bari bari yàlla nee na dama la ciy natt testa la seet ba xam est-ce que dinga ma ci topp def ci lu neex yàlla dugal ko fa neex yàlla wala est-ce que danga ma ciy moy di ko dugal fa naqar yàlla subhanahu wa taala bal hiya fitnatun de ولكن أكثرهم لا يعلمون ويالنا اللي أبتي نيوم خامو نيوم ندكتي على الجباري جي فتنة لبور نيوم دمالن كوي نكتو تستلين تندخ دينن تي دف لما غرم ولا دين كو تي دف لا واي دو بور تيتروكو دو بور بيو ديدت والله آه دو بور بيو دينغ قد قال الذين من قبلهم yàlla ne ne am na ay xeet yu leen jiitu woon yoo xam ne ñoom loolu leen daan wax waaw lii ma am dama ko yeyoo waaw dama ko mérité voilà fekk yàlla moom xam na ni mi ngi lay nattu waaw nattu la innama amwalukum wa awlaadukum fitnatun yàlla nee na seen alal yi ak seen doom yi fitna la ndax alal ji mën na laa dugal ci lu neexul yàlla waaw doom yi mën nañ laa dugal ci lu neexul yàlla parce que fi doom tollu xol wéyjur a tax moo tax yi ñuy jàppee xéewal xéewal la gaa waaye tamit li nekk ci gannaawam ci nattu moo ëpp li ñuy séen ci kawam muy xéewal gi fitna ji moo ëpp nattu bi moo ëpp fa tabaarakallaahu waaw léeg-léeg nga saalit ndax alal léeg-léeg nga saalit ndax doom te yàlla bëggul jaam buy saalit waaw moo tax nag mu ni fa asaabahum xet yi leen fi jiitu woon et pourtant doon doxe noonu doon waxe noonu mujj gi fa ma arna anhum ma kaanu yaksibuun lañ fàgg woon yëpp jariñu leen dara mujj leen a jariñ dara pap jariñu leen dara waaw comme poussière rek parce que liggéeyuñ ci ëllëg yowmal qiyaam lu leen di tax a seen gërëmu borom alal boo ko amee te liggéeyoo ci ëllëg lu la ci yàllay gërëmi daanaka haba am mansuura la poussière la rek du du dara waaw du dara dégg yàlla ni fa asaabahum jot leen ak dal leen sayyaat maa kasabu dégg nga yu way bon yi ñu fàggu woon li ñu defoon ñaawtee fii yi ñu fàggu woon yépp ëllëg ker ci seen bopp waaw walladina zalamu min haulaai maanaam ñi nga xam ni tooñ nañu ci ñii ñu lay wax nii yépp min al muxaatibin sa yusibuhum sayiat ma kasabu ñaawteefu lañ doon fàggu ëllëg yowmal qiyaam danañ dajeeg moom des na leen ko fay waaw waaw kama asaba ulaik comme ñee nga xamante ne nii euh, ñoom noon la leen dalee woon seetal loolu wa ma hum bi mujizin yàlla nee na kenn du échappé kenn du rëcc kenn du rëcc waaw kenn du rëcc moo tax mu lay jàngal comme ni mu xéewale woon qaaruun qaaruun niñ ko xéewale woon nga xam ne tabaarakallahu euh, magasin yu yi mu yoroon ay ponkal ñu daan téye caabi ya ngir di say ken xamul limu limu tollu ci ay magasin ha limu yoron yoroon yëpp kenn xamul nu mu toll waye gëmul yonte yàlla musa yàlla alak ko alal jag yëpp parce que daf ko xone la tafrah tafrax inna allaha laa yuhibu farihin wabtagi fi ma aataaka allah daral akhirah ولا wala نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي آه. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا آه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هذا اللول يعني لم يكن جخون ييب داف bul bul tiitaru ndax yàlla bëggul kuy tiitaru te lii nga am ni liggéeyal ci sa àllaaxira waaw liggéeyal ci sa àllaaxira wërsëg wi boo ci mënee tabaxal yàlla jàkka tabax ko boo ci mënee dimbali ay néew ji doole dimbali leen boo gisee ku sonn nga jàppale ko ba mu am ci lu mu téy waaw fu la wóor ni fii boo fa defee dajeeg ngërëmu yàlla yàlla nee na def fa fu la wóor ni fii ngërëmu yàlla nekku fi yàlla nee na bul fa def defal fi ngërëmam nekk waaw noonu ngay liggéeyalee sa àllaaxira ci wërsëg wi la yàlla jox waaye nag itam li nga war a dundee ci àdduna it nga dundee ko waaw ba waree sol yére solal yére boo waree lekk lekkal lu baax boo waree dëkk fu baax dëkkal fu baax waaw parce que i'mal li dunyaaka ka annaka taayishu abadan waamal li axiratika ka annaka tamuutu gadan sayduna muhammad nee na liggéeyal sa adduna ba mu mel ni doo fi jóg da nga fi sax ba faw waaye liggéeyal sa allaaxira ba mu mel ne suba suba suba nga dee kon nag équilibre wu ci diggante liggéeyal sa adduna ak liggéeyal sa allaaxira diggante boobu foofu la jaam bi taxawe waaw waaye nag yàlla bëggul nga bew ba mu ëpp waaw lii dama ko mérité tax lu la neex def bew waaw baaxul nattu pire la tabarakallahu sadaqallahu alazim wa balaga rasulu nabi mustafa alkarim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa mulana min ashahidin kon mën nañu yow foofu tafsir bi incha allahu taala ba dellusiwaat fii altine ak jàmm ci kàttanu yàlla ak mbaaxam fa tabaarakallaahu euh, man ngeen nag def 88 628 71 71 plus 1 da ngeen di def 88 628 71 71 yëkkati déglu ba ñu indiqué la nga soog a nag euh, def un bi mën a yegg si en direct incha allahu taala ci euh, participation yi ak question yi ci kàttan yàlla ak mbaaxam ni leen ko waxee woon mbokk yi koorangoog muy weer woo xam ne yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa waxoon naa leen ni aamiinu na ci ñaanu jibril alayhi salaam seyduna jibril moo fekk seyduna muhammad ci kaw min baram ñaanal alkande ñett yenent bi wax ñett yépp amin te mooy ki dundandoo ak ñaari woyu juróom kenn ci ñoom te jëfu ci lu ko yóbbaal janna ki nga xamni fekke na wéru koor ba wéru koor jeex te jéggaluñ ko ay bakaram ba mu set wecc ba melni niko way juram jure won ak ki dégg ñu tudd turu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam julli julliwul ci mom waaw waye liñ leen waxoon ñu bàyyi ci xel yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne won na rubba saimin laysa lahu min siyaamihi illa al juu wa rubba qaimin laysa lahu min qiyaamihi illa sahar bëri waa na ku woor ba ngoon jot te jëlewul ci kooram nga lu dul xiif ak mar parce que amoo ca benn yiw danga jàpp ni biir bi moo war a woor waruloo lekk waruloo naan waaye cër yi nga boyal leen làmmiñ wa yaa ngay jëw yaa ngay saaga yaa ngay wax lu ñaaw waaw bët ba yaa ngi koy teg ci lu xaraam waaw yooyu dafay màbb yoolu koor bi nga war a màng ci biir kon cër yi yépp wooral ko bët bi na woor ci lu xaraam nopp yi na woor ci di dégg lu xaraam day ko digtal alquran waaw moo ci gën wala ngay def say tasbihaat di sàbbal yàlla di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ngay déglu alquran yooyu mooy ëpp yiw ci ngay nekk ci yeneen fa tabaarakallaahu waaw waaye tamit bëri waa na koo xam ne dina jóg guddi pour naafila yonte yàlla Muhammad nee na jëlewul ci xiyaamu leylem boobu lu dul foog te mooy ñàkk nelaw parce que amoo ci benn yiw bu fekkente ne nii tiitaru la bu fekkee ni ngistal la bu fekkee ni boo xëyee di ko waxtaane man du ma nelaw guddi waaw boo ko waxee fa ngay fa nga ca yem di yiw wépp màbb na waaw li ngay def sa diggante ak sa borom nan yem sa diggante ak sa boroom mu nekk jaam waaye boo caraxee keneen ku dul yàlla yàlla gedd ko waaw rawaa rawahu nasai wa ibnu maaja wal xaakim dégg nga dafa bokk yooyu yëpp ci ay tegginu koor tegginu koor yi nga xamante ni tabarakallahu dinañu bëgg aji woor ji mu sàmmoon teg teggin yooyu ñu indi ko euh, fa tabarakallahu mooy bokk na ca teggin yi mooy gaaw a dog bëgg nañ ci ku woor mu gaaw a dog waaye nag dog gi kañ matta taxaqaqa xurubu shams day fekk sow jant bi dëggu mu wóor na leen jant bi sona bu ne nee teel a dog non non non du ne euh, dangay ngay da profito déedéet waaye na bàyyil ba mu wóone ni jant bi sona su boobaa nga soog a dog waaw diggante fi ngay doge ak fi ñuy jullee diggante bi lu mu gàtt-gàtt na fi cinq minutes dox bokk waaw boo dogee standard ma julli sa timis soo paree nag jublu ci sa ndogu waaw waaye bëgg a topp ndogu li bëgg a topp caagri ji ngalax gi besaab bi waaw ba daanaka julli timis bi sax daf lay të loolu baaxul fa tabaarakallaahu waaw ab jullit war na rek góorgóorlu ba mu dog jotee mu war a mën a ndogu tàndarmaam nan lu tàng jóg joxe waxtu wi julli ba yeggal su pare nag soog a jëm ci yooyu nga xam ne day diisal biiram amaana boo ko toppee avant ngay julli dina la gàllankoor ba nga diis doo mën a julli waxtu wi ci waxtoom te ko xam ne ni timis dafa gàtt xadrumaatu salla fi ngay jullee sëlmal nga waxtu muxtaar moom jeex na tabaarakallaahu góorgóorlu ci waaw yonte yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam jële nañ ci sahal ibnu saad mu ne yonent bi nee na laa yazaalu naas bi xayr ma ajalul fitra nit ñi duñu dañ di nekk ci yiw li feeg ñi ngi teel a dog dégg nga de rawahul buxaari wa muslim waaw waaye tamit dina jaadu dog gi nekk ci tàndarma lañ ci gën a sopp waaye mu tóol bu fekkente ne nii amuloo tàndarma su boobaa boo amee ndox nga doge ko tàndarma bëgg nañu mu tóol mooy nga doge benn tàndarma wala nga doge ñetti tàndarma wala nga doge juróomi tàndarma tóol gi lañ ci bëgg waaw jëlal benn tàndarma nga doge ko wala nga dogee ñetti tàndarma wala nga dogee juróomi tàndarma wala juróom-ñaari tàndarma sans dépend dégg nga moo tax mu ne jëlee nañ ci anas radiallahu anhu mu ne yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na dogee tàndarma avant muy julli kon gis nga mi ngoog waaw tàndarma lay doge soog a julli timis bu fekkente ne nii mënul am tàndarma mu dogee ndox sallallahu alayhi wa sallam xasa xasawaat min ma waaw rawahu abu daawud wal xaakim wa saxahu wa tirmisi wa xasanahu dégg nga moo tax ba tey suleyman ibnu amir nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni su kenn ci yéen wooree buy dog na doge tàndarma bu amul tàndarma mu njëkk a dogee ndox ndaxte fa inal maa tahur ndox dafa laab bëgg nañu lu laab jëm ci biiram moom aji woor yi waaw moo tax من لو في الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية كون حديث يي دنتي ديجيني sopp nañu nga dog bala ngaa julli timis ci anam bii mu la ko waxee tàndarma yi wala ndox mi soog a julli timis dégg nga fa isa salla tanawala xaajatahu min ataam baada dalik boo xasee julli nag ba pare wala nga soog a nag jëfandikoo kamtalaayal li nga aajowoo ci lekk nga soog a lekk waaw waaye pap Sarr mu dog rek topp saucisson beeg gruyère yeeg mburu meeg yu kenn xamul waaw ba timis ji euh, rëcc ko loolu gënul waaw loolu gënul waaye nag nee illa illa ida kaana taam mawjudan fa innahu yabda'u bihi lu dul ne xëy na ñam waa ngi tege ah nga commencé ñam wi soog a julli nag su boobaa nag moo gën waaw su boobaa moo gën parce que la bañ ngay julli teewlu woo xel mi nek ci ñam wi wa waye dal li gën te ëpp yiw ci julit buy sakku yiw moy dogel tandarma parce que amna sirtu effet bu muy def ci bir tandarma tabarakallah surtout ñetti baxna so nga nandox julli so nag jublu ci ci des bala la waxtu we raw deng yooyu ci ñu sopp ci tabarakallahu euh, koor ci la bokk waaye tamit ñaan gi ñuy ñaan ci waxtu dog wi moom itam fa tabarakallahu lu am solo la euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne inna li saaimi inda fitrihi daawa maa aji woor ji am na ñaan goo xam ni dañ ko ko jagleel ci waxtu wu muy dog ñaan googu bu ko ñaanee kenn du ko delloo waaw maanaam waxtu yi nga xamante ne nii waxtu dog la ci aji woor ji ñaanam yooyu muy ñaan kenn du ko delloo dañ koy nangu waaw moo tax daan na jàng moom sayduna muhammad allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasaat kulla shay'in an taghfira li waaw yàlla maa ngi lay ñaan ci sa yërmande ji nga xamante ne nii yaatu na lépp xaj ci yal nag ma jéggal waaye tamit sax na ni moom sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dahaba aldama wabtalat aluruq wa thabata al ajru insha allahu taala waaw daan na wax ci waxtu dog moom sayduna muhammad ni dahaba aldama mar wi dem na parce que boo xasee dog ba naan su boobaa mar wa dem na wabtalat aluruq sirdi tooy tabaarakallahu waaw wa thabata al ajru insha allah yool wi sax na ndem sob na yàlla maanaam bi nga dogee marwa dem na sidit yi tooy nañu yool wi tàbbi na te mooy yoolu koor gi nga xam ne moom nga wooroon journée bi yépp te nag sàmm yi ma wax ci la aju am ci solo nga bañ a dog tabaarakallaahu te jële woo ci koor gi dul xiif ak mar boobu musiba la waaw waaye tamit bi gën a siiw ci mooy allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma axartu moom ngeen di dégg allahumma ighfir li allahumma laka sumtu yàlla yow laa yow laa doon wooral kon gis nga li ma la doon wax sànq allahumma ka sumtu yàlla yow laa doon wooral wa bika amantu yow rek laa gëm wa ala rizqika aftartu ci sa wërsëg laay doge waaw lii may dogee nii sa wërsëg la yow yàlla kon nga la faghfir lii yal nag ma jéggal maa qaddamtu li ma jiital ci ay bàkkaar wa ma axartu ak li ma mujjee li ma yéexee waaw loolu ñaan googu moom siw na lool ci waxtu dog jotee ci rajo yeeg télévision yeeg tabarakallah farata la nag baax na jullit bi man ko allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma axartu fa tabarakallah ñu ñuy signalé ni lañ ñu cërale woon ci waxtu wi fa tabaarakallaahu jeex na euh, ñu sant leen bu baax gërëm leen ci teewlu bi ñaan yàlla li fi jib yëpp yàlla na ko yàlla def yiw euh, séddale ko ci àdduna bi yëpp fa tabaarakallaahu euh, sant bu baax suñu cameraman yi Pape Sarr ëmma tabarakallah Pape Cissé régie bi suñu soppe bare Cheikh Taalif tabarakallahu Amadou Kébé ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen ci liggéey bu rafet bi fa tabarakallahu sant soppe yëpp ñi nga xam ne toogoon nañu di teewlu waxtaan wi incha allahu taala désormais nag wax nañ leen ko incha allah bayaay bi dina commencé daw koor gi ëttu daara ji tous les jours lay doon altine ba aljumma ci kattan yàlla ak mbaaxam waaye léegi nekkatul 15 heures dañ ko avancé mu nekk 15 heures 30 ci lay commencé ba 16 heures 30 incha allahu taala ñu sant leen bu baax gërëm leen seen mbokku daara. استاذ مرجوف من كنت كدوجي لطي جبتي يلا لا لطي دنجتي مانك مانك دوم آدم لا أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بألتنك جام إن شاء الله أفقر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فتحنا لك فتحا غفر لك الله